yàlla laa lay doy toppal ci gannaawam tuuti rek bu dee yàllaa leen nga ci xam dara sëñ Maodo daana wax ni ki lay woo pour jariñoo la nee na ñëwoo du noppi nee na ki woo pour yóbbu la ci yàlla benn yoon la lay woowe boo ñëwee baax na boo ñëwul baax seytaane su lay su lay wommat ak nitu yàlla bu lay wommat bokkuñ seytaane bu lay wommat bu la woowee ba nga ñëw dalay féete gannaaw defe naa li ma bëgg a wax du ngeen ko xam nitu yàlla bu lay wommat da lay jiitu jàpp ci sa ci sa nos saytaane bu la woowee dale ba nga ñëw dalay lay féete gannaaw moom dalay puus daal maanaam kii da lay xëcc li ma la bëgg a wax mooy ki lay woo pour wàllu yàlla bi moom moom nitu yàlla bi bu la woowee ba nga ñëw dalay jiitu ca lam lay doyee di ko def nga di ko gis seytaane nag da baax baat naan la defal lee toog ca ginnaaw moom di la puus boo daanoo ci biir rek mu arrière at wuti keneen ndax leer na leen daan la fa fekk moom comme yàlla ne na ko ci kàmb yi nga jëm ba pare moom kay day seet ñu mu ciy dugal ba mu bare mu door a dugg bu la poussé ba nga ne ci kàmb gi rek mu daal di arrière dem wuti keneen comme nag am nañ mag ñoo xam yàlla baaxe na leen ba ñu woonu nan leen wuy ji rek nan leen wuy ji nag tanu ñu walu yàlla yomb naa xàmmee lii de lu nit dof dof dof dana xam walu yàlla ñépp tiim seen këyit yii këyit yu weex yi ngeen séddale rek ku leen tojaloon tey li ci nekk burdu bi mom sa xel dootul xalaat di ko tardeete te lii nitu yàlla tëgg ko sëñ Moustapha mi di ko tëje imam Shaafi way ko waaw uh, man kay ki koy way moom moo jaaxal baat bi waa ngeen muñ rek waaye ki ko bind moom bind na xanaa li xéewal yi ci nekk rek lañuy taatal baat moom tabaarkàlla xam naa li mu gëj a waye su ko defee nag nii rekk la tey jii moom dangeen ngeen nuy jéggal rek ren te ñaanal nu nag soxla nañ seen ñaan nag su ko defee sëñ Moustapha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 وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي المعلوم والبرزخ المختوم شيخي وسيدي ومولاي وحبيبي أبي العباس أحمد التجاني سقانا الله من بحره بأعزم الأواني وأحله دار التهاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونجلين دينيو تدلين زيارة دلين بالحق دلين بال دينيان يالله بولينيو جيغل دلين دوكيل تي قدي يو تدي دي قدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ku yàlla magalal bopam teddalal la ku laal ci sa yëf am ci teranga ga ak barke ba cheikh seydi alxaaji malik radiyallahu anhu ni wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taazimi injaahu shujuuni لدوا به شرف وقيمة شهر ثم يوم لدي شهر ثم يوم عندنا أتى فيه الهدى خلد خلود لحتى سرور في سرور في سرور عندنا وعيد دون Di Malik radiyallahu anhu ci xam-xam bu beuri ba ak wilaya gu mat ga ci qasidam bu rëy bobu ko ko man rek nako ca fek muy nuniya def ko ci wafir def ko <laughs> mo gëna saf xorom ci qasida yi ndax sirrul lisan da ci daw limu 121 be tax allahu inna nazma yak fii zaqilabin yaa diis la keef vingt muy lan trente fa muy ñaata yaa diis muy ñaata cent vingt ak bayit bi mu waxee ne cent vingt la boolewu ko ci muy cent vingt et un di huwa boo dar ci huwa moo tax alaaji Maalik ne wa mawliduhu màggal juddu rasulullahi bi ci nekk na ca sharafun tedd ngak adduna sharafun tedd ngak alaxira wa xiirun yiwu adduna ak yiwu alaxira nga at kon nag ndegam juddug yonent bi moo am loolu cheikh alhaaji Maalik ne fa fi taazimi injaahu shuduuni injaahu shuduuni fi taazimi nee na fajug mu ngi ci màggal juddug rasulullahi ah fa tabaarakallaahu tey nag ñu jagleel ko ñaari mag yu bokk ci mag ñi àndoon ak Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy radiyallaahu kenn ki di sëriñ Mor Aram Jaw fa tabaarakallaahu ñun doonte xamuñu ko waaye nag xam nañu njabootam xam nañ ay doomam xam nañ ay sëtam seen taxawaay kenn mënu leen moo tax kon xam nañu ko mu nekkoon benn ci ndeyam ak baayam tubaab bi soxla ku dem militaire baayam nekk benn boobu laa yor jox naa leen ko waaye nag dénk ko Mame Malick Sall maam Malick Sall ñaanal ko ne danga dem danga ñibbisi fa tabarakallahu moom moom meññi góor gi Amar bu gumma Mbóoj bi jur Sëriñ Mortala Mbóoj nga xam ne buñ daan ziyaara ji Dakar ci saxaar ga am na yoo xam ne moom moo joxe caution bi nga xamante ni mooy tax saxaar gi nit ci man ci dugg ba dem ziara ji Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy setam ba ñuy wax Mortala Mbodj kenn réeréwu ko doomam ji ñuy wax Serigne Mor Fa xam ngeen ko fa tabaarakallaahu gàmmu Seydi Jamil ndawal geeg nag yi lépp ci xaam la nekkoon ñoo ngi jaare di nuyuwaale di ziyaare waale ñu ko daan bokkal fii ku mel na Xalifa Mbodj ku mel ne sëñ Moustapha bay Tafa mbubb mi ma sol moo ma ko jox kii ñu ko tuddee tey kooku way juróom la waaw ah, fa tabarakallahu ku mel ne Khalifa Lay ku mel ne sëñ Abbas Dieng toujours ñu ko daan wettali ko ak ñoom lu ñu fi jëlee rek yàlla nañ ko bokk ak ñoom mu nekkoon ci mag ñi bokkoon ci mag ñi ak ku ñu wax sëriñ Omar Cissé di alxaaji Omar Cissé nitu alquran kooku di way juru sëriñ xaddam Cissé nekk na imam di jiite julli juróom ci grande mosquée bi ñaar fukk ak nangam ciy at man bokk na ci sama sëriñ yi ma jàngal alquran daan bind kiis ba tàyyi di ma ko jox kon nag ñoom sëñ Moustapha itam miinoon leen kële mu ko daan wax bàyyi waaye itam sëñ Omar Cissé mu daan wax ni fu ngeen demee barab bo xamanteni walu dialogue la walu waxtan dana dana bax mom seigne mustapha dan wax ne ngeen boyal ku mel ne Omar Cissé ndax fa tabarakallah yàlla ak may gim ko mayon tim am kaddom waye itam ci xelam mu rafet kon jaadu na ñu fàttaliku len jàngal len fatiha ak fukki qul huwallahu ahad ak ben juróom-ñaari inna anzalnahu tëjee salatul fatihi ñaan muy ak jaamu ci ñun yàlla jël ko def ko muy hëddi yonent bi salaa salaam niyaabata an Cheikhna Ahmad Tijani def ko muy yërmande def ko muy njëggal def ko muy leer sotti ko ci seen ruux ak ku ñu fa fekk ak ku leen fa xalaata fekk ëllëg ak luñ bokkal ci diine ak deret yàlla yàlla nangu ko dolli ay yërmandeem ci ñoom te taas ñu ci seen i ndax lépp ñooma suba insha allahu sëriñ man daagu ja ak sëriñ màggat jaw la ñuy rendre ñu bokk ba tey ca mag ña Cheikh Al Hadj Malick andil ñu burda tax ñu xam burda xam naa Muhammadul Busiri yi de radiyallahu xam ma lu doon ñaan waaye ñaanam mi ngi nangoo ci Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu tey ñu yam ci buntu ñaareel bi muy wax ci fi taxdiri min hawa nafsi mu tàmbalee fa inna amaarati bi suui ma taazat من جهلها بالنظير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف علم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم عني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم كنك فتبارك الله نيتي بيت يوي نيتي تود لن تباركلو تل وتلي شيخ سيد الحاج مالك فم نك نيون تي يونتي صلى الله عليه وسلم الحاج مالك ني ما لا وخون يا غائس البحر للاسداف اندي اسداف بها دره اعلى من الجلم يوم غا خاملتني ياغي لخص دي دوغ دارا للاسداف غير خام كان مو يونت بي صلى الله عليه وسلم الاج مالك نيوان لا بول سوري بول ديم فن اندي نيك نا في من ماودو اسداف خلاص الذهب بها نيك نتا durratun faram fàccin woo xamante ni ala moo gën leer ala moo gën a wér minal jalami ci fóore boo mën dem Cheikh Al Hadj malik nekk ak yow ci melokaanu Sayyiduna Muhammad mu ni saltul jabini

Amen. الموضوع واجزي أبدا أبدا أن محمد